abone leen ci seen seen YouTube Partout TV moom mi leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV dal leen ak jàmm mbokk internet yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy teewlu fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew di leen di wax way leen di abonné dañuy dikkaat nag mën nañu bi ba tey wàccagul ci ñi nga xam ne rek ñoom ñooy takk der yi ak ñooñu nga xam ne rek ñoom ñoo fare ca diwaanu Ngor mbir mi ni mel nag daal di judduwaat ni tey ci ngoon gi gannaaw nag ay doomi aadama yu nga xam ne rek jotoon nañ leen a teg ñu toll ci vingt trois doomi aadama foofale ca am nag li nga xam ne rek moom mooy retour de parquet ni ki tey nag nekk mbir mu nga xam ne rek euh, jommal na leen te tamit jaaxal na leen gannaaw nag bi ñu fogee ne kat ñoom ñi euh, dinañ daal di maandu ci li nga xam ne rek moom mooy euh, seen mbir. ci diggante ñi nga xam ne rek ñoom ñooy takk der yi ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo nekk foofu foofule ca diwaanu Wakaam mbir mi ni nag mën nañu moo jur li nga xam ne rek moom mooy coow li jot a am jamono yi ñu toll nii gannaaw nag seen doom yooye nga xam ne rek jàpp nañ leen ñoom ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca diwaanu Ngor di xamle kat ne kut ka kut nañu daal di bàyyi ñi nga xam ne rek ñoom ñooy seen doom yooyee sinon rek mën nañoo ba xam fi mbir mi di commencé wante kat fa yam bu ñu ko xam mbir mi ni waral ki nga xam ne rek moom mooy imam daal di jot jut jug sax daal di def li nga xam ne rek moom mooy benn appel nekkat war nañoo taxaw teg ko ci taabul ji ñu waxtaane ko xool suuf si nga xam ne rek ñii di gendarme bëgg nañu koo jël donte la sax ñu bare bari daal di wane ne amul kéet boo xam ne rek day firndeel kenekat ñoom ñoo ñee am nañ droit daal di tabax foofee nga xam ne rek bëgg nañ koo dël gannaaw nag ba ñu dëkkee sa diwaanu Ngor nekkat ñoom foofee place publique la xam ne xam ne rek mayul kenn mu fay tabax walla sax mu fay def lenn lu nga xam ne rekk lu wuute ak la waa dëkk ba daal di naan la taxoon nag jàmmarloo yi di metti saa su neex bi ci raw nag di tey si ngoon gii nii ba tey mën nañ pënd ba wureegul kon ci seen diggante.